nga ñu jugee waaye di ziare bu baax jaw nooru daare ne mi nga xam ni moom kenn la ci ñun di ñu jàppale eh, ci saayir ak ci baatin nga xamante ni bokk na ci ñi nga xamante ni ñuy gunge ci jamono bu nekk moom jaw nooru daare ni doon fajkatu aajo bu mag nekk foofu ca diwaanu Kër Mbay Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare waaye di ziare bu baax sëñ Assane Mbàkke Nasrullah noo ngi koy ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal tawféex ak taysiir di ziare sunu wéyjuree ñu bàyyi ca kër ga ak mboolem koo xamante ne rek di bi yaa ngi ak li ko wër Euh, kon bu ko defee rek euh, dañuy jox ki nga xamante ne si mooy sunu invité. bu ko defee muy Mouhamadou Sall Mboup euh, di doom ci alaaji Makoro Mboup Mouhamadou ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim. allahuma salli ala sayyidina muhammad wa safiil mustafa fil maxsari ñu ngi jiital ci nuyoo bi bàyyi Serigne Assane Seck xalifa général bu Thiénaba mhm. di ñaan yàlla yàggal ko fi tam ànd ak wér mhm. waaye di nuyu imaamu raatib Serigne Seexu Amadou mhm. ak imaam yi ñu ko bokkal ñëpp lépp luñ jiite yàlla na ko yàlla ñangu jaay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa borom dëkk ba di ko nuyu macha allah waaye noonu lañuy nuyoo Serigne Mountakha Bassir macha allah Serigne Mbaye Sy Mansour bépp xalifa général bu nekk ci Sénégal ñu ngi ak bépp xalif kilifa aare macha allah. Mhm. Euh, jërëjëf euh, Mouhamadou euh, Sall Mboup tey moom la ñu dalal ci suñu émission bu mag bii di guddi na bi guddi na nag wax naa leen ko mu doon émission boo xamante ni képp koo xamante ni tàggkatu yonent bi nga rek ak foo mën a bokk dinañ la woo ci suñu émission bu mag bii di guddi na bi waaye di ko ànd ak nag bu baax waa Grand Yoff TV. di leen nuyu di leen ziare guddi na bi nag comme ni ma ko waxee woon léegi doon la émission boo xamante ni képp koo xam ne tàggkatu yonent bi rek moo la tax a jóg. wala waxtaane mbindu mag ñi rek bu soobee yàlla dinañ la invité ci suñu émission bu mag bii di gudd na bi yaakaar naa ne gis ngeen ko tey nag ñu ngi dem ba diwaanu ba fekk fa ndaw loo xamante ni day yëngu ci tàggkatu yonent bi te suñu yitte mooy fekk ndaw ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci tagg yonent bi ñu di leen fésal di leen wane ndax loolu mooy li nga xamante ni moo am solo ndax taggu yonent bi dara dara dara féetew ko kaw moo tax tey ñu indi Mouhamadou euh, Sall Mboup nekk foofu ca diwaanu Canaba xam naa rek ñu sori dañ koy bàyyi rek bu ko defee mu daan ñuy léemu jotaay bi ubbil ñu ko déggal ñu xa yaakaar naa képp koo xam ne rek yaa ngi Canaba tey incha allahu rabbi sa xol sedd na bëgg nga ndax tey dañoo daral nag doomi Canaba Mouhamadou euh, Sall Mboup bisimilah.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 لا إله إلا الله لم يدين الإمام سيخنا ما لا إله لا إله إلا الله لا إله مولا ربك جل وعلا لا إله ودمرنا جبينا بزمانه لا كرم بدرنا سيد بينا مني جوله لا إله بزمانه لا كرم بدرنا سيد بينا مني جوله لا إله أكبر